mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen andax àndaax ñun ci site bii di Sénégal matin tey nag ñoo am ci mbégte di ci dalal rek ki nga xam ni mooy di Ibrahima Kaba nekk responsable politique fële nga xam ni moom moo di ca diwaanu Tambacounda tey nag moom la ñuy war a sekk ak waxtaan ci li nga xam ne moom moo ñeel actualité bi ci nim réew Ibrahima Kaba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Mbemba na def. waa Ibrahima Kaba tey euh, naka nga gisee rek li nga xam ni moom moo jëm ci actualité bi ci jamono joo xam ne ñu ngi xeex coronavirus bi ñi nga xam ni ñoom ñoo di ay ministre DG jàpp di organiser ay caravane di yóbbu étudiants yi lan mooy seen réaction bu njëkk ci wàll wi ni mel te njiitu réew mi nee na kat ku ci mën a def tabaski bi na ko defee ndakaaru nga bañ a génn dëkk bi. waaw waaw nga déjà maa ngi di ñëw bu baax a baax leen ziar bu baax déjà si. Euh, ci laaj bi euh, déjà bu ñu war a constater mooy que tey bu ñu seetloo gis nañ ko sa mbas mi baa ngi yokku temps yi donc y a beaucoup de cas euh, c'est vrai que njiiti réew mi génn na wax na ne que képp koo xamante ne mën nga jullee Ndakaaru nga jullee fi mais da nga war a xam ne benn affaire aussi tey bu ñu seetloo ne que xam nga Dakar comme ni ñu souvent rek Dakar fii kenn dëkku fi. Euh, nit ñaa ngi dem mais dañuy dañuy ne aussi que euh, ci biir loolu nit ñi nañu wàññi euh, dem ci yeneen dëkk dëkkaan mais dafa am ñoo xamante ne tey amuñu feneen fudul seen dëkk te tabaski dafa doon doon loo xamante ne c'est des moments yoo xamante moment de rencontre am ñoo xamante ne ñu ngi fii pendant un an donc ils n'ont la tabaski pour dem man lu ma jàpp mooy li ci li ci ëpp solo mooy képp koo xamante ne da dem mu nga te munoo toog Dakar il faut nga dem. boo dem également je pense li ci am solo mooy nga observer les mesures barrières bien que du du du yomb mais je pense que tey ñu ñu farloo euh, solu masque bi rek euh, fexe daal distanciation ñu mun ko respecter ci lu mu luñ ko mënee mais également raxasu loxo yenn affaire yi ñu def ko mais beneen beneen affaire bi également boo xamante ne man jàpp naa nit ñi dañoo war a fexe ñu vacciner bien que nag tey vaccin rare na Euh, Sénégal mais je pense que autorité yaa ngi def seen képp nekk tam pour nit ñi mën a am euh, vaccin pour nit ñi vacciner parce que tamit euh, neexu ba neexu la ah, nit ñi ñu bëri def ñu Dakar ah. donc il nañu ko laata parce que dem gis seen seen i mbokk yi donc koo xamante ne mënul toog Dakar je pense que bu demee aussi seen dëkk je pense que li ëpp solo mooy nañ respecter les mesures barrières man na loolu mooy sama gis-gis te voilà ñu fexe daal. xeex xeexandoo dóorandoo xëccandoo dóorandoo pour que mbas mën a jógee fii quoi. alors Ibrahima Kaba di fàttali itam ni responsable politique nga ca diwaanu Tambacounda ay fan yi weesu dëggaloon nga fi ne di nga nekk candidat ndax yaa ngi dëggal li ni mel ba tey. Mhm. waaw loolu loolu moom maa ngi ci xam nga. Euh, mairie bi wala conseil départemental. Hmm? mairie wala conseil départemental. non conseil départemental conseil départemental te bi ma koy également euh, dama dama cee xalaat lu bëri bëri bëri par exemple la ma jël décision donc ma ma jël décision également ba léegi euh, reculé ma ci benn yoon donc je suis candidat vraiment au poste de président du conseil départemental Tambacounda loolu moom lu leer la donc maa ngi ci te maa ngi ci maa ngi ci xeex maa ngi ci maa ngi ci liggéey pour vraiment lu moo mun a antu. ndax da nga jàpp ni ki fa nekk tey nii dafa lajj. loolu moom loolu moom lu leer la ki fa nekk moom yàgg naa ko wax même temps dem na def na ay émission yu bëri wax naa la ko waaye parce que si hmm? waaw Sina Sissoko dafa laaj ci li mu ci dèjà li buñ ko dénkee ba léegi mënoo taxaw Tamba dut sa bar na lii pendant en tout cas tout sa magistère voilà lii la ci réalisé la ci def en tout cas si biir ci biir Tambacounda parce que Tambacounda comme je l'ai dit tout le temps Tamba dafa doon loo xamante ne c'est sa position stratégique tey war na fexe tey képp koo xamante ne nekk nga fa boo amee en tout cas euh, xel rek am nga boo amee as tout gis-gis rek war nga mën a def dara mais tey boo demee ci département Tamba mënuñu wax ne lii le conseil départemental réalisé ko noonu donc Tamba am na ay opportunité yu bëri bëri bëri yoo xamante tey nit ñi war nañu mën a fexe loolu ñu mën ko réaliser mais malheureusement on n'a pas n'a pas pu le faire je pense que moment pour nous vraiment ñi nga tey yàlla def nañu am na as expérience te wala yàlla mun ñu dimbale ñu mën a nekk à la tête en tout cas de cette institution la pour mën a développer le réew mi. da jàpp nga ni dina yomb gis nañu njiitu réew mi arbitré gul ba léegi rek ba tax na nee na ngeen déglu ko ndax am nga confiance njiitu réew mi ba mun a tey jiite liste bi foofu. xam nga man sama gëm-gëm mooy àdduna dara yomb lépp lañu ñu mën def rek dañuy dañuy dañuy sabablu dañuy dañuy dañuy xeex góorgóorlu te gëm naa ne tey am na am na li ma ci def am na li may def loo xamante ne tey am loo xamante kenn du ko wax mais gëm naa ne tey maa ngi ciy liggéey maa ngi ciy xeex maa ngi ciy wax maa ngi ciy dox te également au niveau de la base également maa ngi fexe daal ba yàlla def di ñaan yàlla rek euh, yàlla def que yëf yi ñu tànn ma ci te mu nekk candidat vraiment pour suñu parti pour le compte le conseil départemental de Tambacounda alors mais ku wax tey Tambacounda wax le ministre Sidiki Kaba ministre forces armées wax ki nga xam ni moom moo di euh, Mamadou kase directeur bu SICAP tendance su ñaari leader yooyu naka nga koy jàngatee. waaw tendance yooyu yàgg na fa parce que yàgg na am tendance su Sidiki tendance su Mamadou Kassé euh, loolu yàgg na am Tambacounda mais li ci am solo mooy jàngat bu mu ci am mooy xam nga. ci parti bi loolu du ñàkk donc loolu day wane nag vraiment que y a une vitalité bi am si biir parti donc euh, mais bu am bu mu bu mu amee ba léegi daal gis ba léegi y' a pas d'animosité chacun est en train de son côté pour wax na man je candidat à la mairie man comme je l'ai souvent dit man dama doon damay collaborer ak Mamadou Kassé euh, Sidiki de l'autre côté également il candidat à la mairie euh, pour Tambacounda comment on appelle le ministre également pareil donc li ci am solo ba am solo mooy euh, gëm naa ne euh, en fin de compte dinañ am consensus parce que président de la république euh, bu ñu ba ci cappaandaw ga dina am décision bu ñu jël te te gëm naa ne nit ñi ku nekk ku ñu mën a tànn également di nga tànn lépp solo rek mooy na ku nekk nekk sa côté boo gëmee que yow ci candidat pour la mairie na xeex ba yàlla def lu muy def ba président. bu ñu jubawul nag le président prendra une décision et je pense bu jëlee décision moom ñun ñëpp ñu ngi ci rangé donc loolu laa gis instant bi ñuy Tambacounda xeex baa ngi nag wéy donc mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi. yow continué na jàppale tey Mamadou Kassé nga bu doon présenté wu ci mairie bi mën nañ jàpp ni euh, Ibrahima Kaba euh, Kassé lay jàppale ci mairie bi. xam nga man man je suis un militant du président de la République. je collaborateur caché mais je suis militant président la république man tey euh, ci li may dox mooy ci ci kaddu njiitu réew mi lay dox tey euh, candidat euh, Kassé il est candidat Sidiki il est ku nekk am droit nekk candidat mais tey ku may déglu mooy le président la république le président la république bu ne tànn naa Kassé je suis bu ne tànn Sidiki je avec lui parce que après tout c'est le parti qui donc man loolu laa donc du tere nag que que je continue à collaborer bu kase donc ba léegi loolu loolu loolu donc loolu moo mais comme je l'ai dit je suis un militant du parti et je suis un militant de de du président de la République moom laay déglu rek ñun loolu la ñuy nga jàpp ni opposition bi amu fa benn sens tey pour mën a gagner ci moo xam ci président conseil départemental bi la wala ci mairie Tambacounda bi ndax jàpp nga ni opposition bi bu ñu boolee seen doole mënuñu leen yóbbu itam mënu leen def quatre appuis comme ni ñu koy waxee. non non gëw ma ne opposition bi war na mën war na mën a war na mën a gagner foofu suñu parti foofu kay lu ñu lu ñu fi mën a yaakaar rek mooy. ñàkk jubóo beeg ak ah, a mën a am suñu biir moo ah, voilà a yàqal mais pas l'opposition mais bu naree am bu problème naree am kam suñu biir lay doon ñaan ma yàlla na mu am te parce que gën naa ne foofu noonu luy euh, dëggal lañu président de la république te chaque fois euh, coow day am rek mais président saa saa waxee rek nit ñi sont toujours en arrangement pour que ñëpp topp ci gannaaw le candidat qui sera choisi par le président de la République pour le pour le bien du parti en tout cas des populations du Sénégal oriental mode di scrutin bi léegi euh, suffrage universel direct lay doon noo ko gisee lu leen arrangé la wala loo xam ne dina indi gàllankoor ci yéen. Euh, loo ci man loolu lu may lu ma yàgg xeex la lu ma yàgg wax la dama yàgg dama gëm na tey nit ki euh, à l'image du président République tey population war na mën a xam ne que bu may wotal kii naay wotal mode scrutin indirect bi sonal nit ñi parce que tey nit ki day ñëw nekk tête de nga dem ba ci biir il n'a pas les moyens keneen am les moyens mu jàll ci kaw te ki fay jàll ci kaw c'est il pas choisi par en tout cas par les par les populations à la base donc loolu day indi ay problème moo tax souvent boo seetloo Tamba tey loolu moo ñu moo ñu moo ñu daal euh, tey conseil départemental bokk li fa am mairie ba li fa am ak yeneen ak li fa am donc voilà des gens yoo xamante ne tey gën xam na ne ñi mënuñu fer mënuñu bouger loolu dara réew mi mais malheureusement ñoom ñoo fay nekk te ñoom ñooy ñoom ñoo jël pendant cinq ans ñoo ñoo yor réew mi ñoo yor localité bi et puis duñu je pense que tey bu ñu nee diw mooy nekk de liste nit ñi dinañ xam ne kii bu ñu votelé kii mooy nekk suñu suñu maire kii bu ñu votelé diw kii mooy nekk suñu président conseil départemental donc man donc loolu dama koy rafetlu moi je pense que loolu c'est une très belle innovation innovation mm-hmm. et man ànd naa ci loolu bu baax a baax mm-hmm. je suis très Ibrahima Kaba site Sénégal matin ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci nu nga nangoo. Euh, sekk ñu waxtaan bi. merci beaucoup Mbamba maa également maa ngi leen di remercier bu baax a baax waa Sénégal matin. Mhm. jërëjëf merci.